tey moom man maa la ma maa lay maa lay posé question sañ Mor Talla Fall. tey tey tey moom maa maa maa lay posé question. maanaam mbirub Cheikh Ibrahima Fall. mu mel na ñëpp dégg nañ ko gis nañ ko. waaye waaye waaye ci ilmul yaqin ci li nga xam te ni maanaam yu yu yu raqi ruux yi. tarbiya gi doon tarbiya mag ñi. Sëñ Tuubaa tarbiya ko ko moom. ba ni ku dul Cheikh Ibrahima Fall. awma ko ci taalibi ruu googu Cheikh Ibra doon defar ci mag ñi ba ku nekk fees dell ku mel ni sëñ Abdoulaye Yaqin Diop fekk na sëñ Tuubaa ni ko kaay mu yóbbu la ci sama sëriñ mu dimbali la te boobu sëñ Tuubaa sëriñu sëriñam keneen ak keneen ci mag ñi mën nañ cee tudd ñu bari maanaam secret boobu lan ko ci mu mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall daa nekk koo xam ne mag bu nekkoon biir kër Serigne Touba jaar ak yow daa nekk loo xam ne kenn ko si nekk ba ngay teew ci biir kër Serigne Touba ndaa la nga sam ndab waaye ndab li daa takk kon maam Cheikh Ibrahima moo yeesal ndab la ba mu yees mm. du ci du ci leerub yàlla ba ki nga xam ba nga xam ne Serigne Touba amul woon jot di def ci ñoom maam Cheikh Ibrahima Fall def ci ñoom ba ñu fees del ba kenn ku si nekk mu neex la ak mu naqaree ak nga yëg ko ak nga ñàkkoo yëg maam Cheikh Ibrahima defal na la ci def googu noonu ci ngay jaaree yëg di fi ngay jaaree ba nga xam ne moom saa boo wootee yoon maam Cheikh Ibrahima Fall da ciy am cër si biir. Mhm. ëxlu Mbàkke yaa ngi fi bëri fi fees fi del waaye seen biir si biir lépp luy ruur si suuf yëpp maam Cheikh Ibrahima Fall da cee bokk kenn nekk am nga sa bëkk néeg naan kii mooy sama Baye Fall ba si njaago bi naan Baye bi Tijaan bi Baye Fallu nangam Laayeen bi Baye Fallu ñoom si yéen seen biir waaye maam Cheikh Ibrahima Fall. dafa nekk koo xam ne daa jaayante woon diggante moom boromam ba jeex tàkk ci boromam ci boromam ci la ko tegtalee ne ko Serigne Touba moo la moom. ba nga ko tegtalee ne ko moo la moom ni Serigne Fall wax léegi moo ko wax moo ko wan moom nan lay jébbaloo ci Serigne Touba. kon maam Cheikh Ibrahima Fall taalibe mu ngi ko jàngee nekk ko xam ne ndigal lu Serigne Touba mu sa mu sa joxe ndigal ci bu ko yëgee ndax dana fay ah la moo ñu seen sëñ Bamba moo leen yónni lu mu lañ yónni ñu ne nangam lu tax demagul ñu ne nangam moo leen tax dem moom mu joxe ndigal ba pare jox leen ko ñoom ñu dem yóbbu ko kon maam Cheikh Ibrahima Fall nekk na koo xam ne boo xoosee si moom tuuti rek mun nga xam kan mooy Serigne Touba te Serigne Touba di ko xam ndax Serigne Touba da ngay xuus si moom ba fi nga yem nga daal di doon nag ngir la du yoon Serigne Touba ngir la koo xam ne amul yemukaay waaw ndax maam Cheikh Ibrahima Fall moom ci moom ngay tàmbalee yem ci moom ngir nga mën a xam kan mooy Serigne Touba ngir nga mën a jëriñu Serigne Touba Serigne Fall li may laaj ci maam Cheikh Ibrahima Fall mën naa cee indi lu bari waaye maam Cheikh Ibrahima Fall moo nekk ko xam ni nañ ci moom ngir mën a génne ay secret ci biiram ngir mën koo tasaare ci jaamu ndax laata sama CN bi xëyri isnin ba isnin saxtun bi xabali sax <laughs> lépp lu lot nañ ci joxe ndigal loolu ci gaa yi xam kan mooy maam Cheikh Ibrahima Fall kon sëñ Fall da ñuy indi maam Cheikh Ibrahima Fall yow sëñ Fall loolu jox nañ li ndigal bu baax nga moom fi mu toll nii comme man ak yow ñooy def émission boo bëggee nëbbatu <laughs> émission bi Euh, dafay kii ndax maanaam tëj nga wax ji yëpp ci innaa nahnu nazzalna na wa innaa lahu la xaafizun ñun yàlla ñoo wàcc alxuraan waaye ñoo koy saytu fépp waaw nazzalna dhikra boobu ndax ñu koy firee zikra boobu alxuraan alxuraan tudd ak zikr kon fépp foo ci mën a garmbaasu ni ko tuddee kër goo dem am na cërub Seex Ibra waaye kër Seex Ibra moom ndax am na tijaanub kër gi wala laayonub kër gi wala nangamub kër gi ah ndokk yàlla kon dañuy teew ci faqat faqta rijaal xat justal majal innakal kamal waaye léegi bi ñuy wax wax jooju te ki wax lii yonent bi mooy maamam sëñ Tuubaa mi ngi fi woon te su ma juumulee way wi ci sarsaara la ci ahlu daymaan su ma juumulee it ki ko way it maa ul ay nay ni la tudd yonent bi mooy maamam te daa dugg xalwatu ni wan ko mbirub Seex Ibra Faal waaye wax ju rëy ju toll nii góor ñëpp nekk fi waxul góor ñi de tout simplement kuy takk tubéy waaye góor guy fanaani deewaan ndox Seex Ibra Faal xat fuxtari jàll jéggi na góor ñi kon ñi ci am seen góor moom di ko gam-gam leeg see Ibra ki ñooñu Seex Ibra ci lan lanu ne léegi xat justal majaal gars yi daawun woon yegg ci yàlla bi Seex Ibra ñëwee ci la ngërëm am bi Seex Ibra jébbalul woon ndax da nga dégg Sëriñ Tuubaa seexal kenn sëriñ bu daara la woon buy jàngale alxuraan léegi ngërëm gi tax ku nekk bàyyi sa ndey bàyyi sa bàyyi tab bi mm. kër maam bu ngërëm loolu di am ndax kon dañuy dañuy toog rek ci Sëñ Tuubaa nekk sëriñub daara te wax na ni walaatu rabbihim bi dar si faqat yonent bi moo ne ma wëlbatil ngalabu fas wi bul kenn ci bind yar leen ci himma nga nu ciy dimbalee ngir jëmmi Seex Ibra waaw maam Seex Ibrahima Fall ci ci ci ci wàll woowu ba mu nekkee si kër gi ab diir baax na ko si kër waaye saa bu xuusee dajeeg Serigne day àgg nekk Ahmadou waxal li la sa sa borom wax nga wax ko jaam ñu texe. Hmm. waaye loolu loolu mooy lan mooy question bi nga wax léegi ci laa ilaaha illallah ci la maam Cheikh Ibrahima Fall doon dund Serigne moom baat boobu laataa loolu. ilaa laa ilaaha illallah boobu laataa loolu Serigne Touba am na mbóot bi bu yàgg téye waaye Serigne Touba nit ki dina yor marchandise boo xam mënu koo jëriñu moom kese waaye moom kat moo ko war a mën a ñëw laaj ko marchandise yi ngir moom tasaare ko ci jaamu yàlla yi maam Cheikh Ibrahima Fall mission boobu moo ko indiwoon biir kër Serigne Touba moom du boppam moo taxoon du bëgg a yegg ku yegg ci yàlla yàlla tegtal la ci ci kon kooku ñun jaamu yàlla yi la ci laa ilaha illallah ngir koo jël ci Serigne Touba waaw ndax axfaaliya sëran masulallahu bu bon wa mhm. yor lool kooku soxlawul leneen kenn kon maam Cheikh Ibrahima Fall moom sëñ Fall damay dimbali damay damay damay jox ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall waaye maam Cheikh Ibrahima Fall man damaa lott ci tàllal ko lott naa ci tàllal ko loolu la. Issa Dieye Fatou Penda moo doxalee tuuti rek damay damay dina dem ba xëy ta moroon mi si jab bi ma si rek ma déggan njaay jëgg bi. isa jëy faati pendalat sukaabe damel damel fu njóogu damel déccalaw damel samba yaaya faal babul muridina mi ni booleeg fara xati keroog njar ndeem maam sëy na bu njaay sëwru maam sëy na bu njaay dangay wax ni doy na sëkk ñu xam ni soxna na mi way juru soxna sëy na bu njaay bokk na ci jigéen ñi njëkk mokkal alxuraan mm-hmm. nga toog léegi-léeg sax dégg ñu naan la Cheikh Ibra Fall ceddo la woon mm-hmm. laa daal Ababacar ci lislaam dal Cheikh Ibra Fall ci lislaam Ababacar am na juróom fukki moom yu musta mooy yàlla borom ba leen Cheikh Ibra Fall Moussa maam bu mooy yàlla kii wane yàlla du tax da dañ maam jàngul woon ak maam Touré atumaan la dalee hmm. maam bi muy mokkal alxuraan alxuraan wàccagul ci nguur yàlla gi dañ ko laaj kañ nga jébbal sa bopp sëñ mba mu ni bi may jébbal sama bopp sëñ Bàmba ndey ak baay amul hmm. fan la nu àndee mu ni fa ëzal la démb la hmm. te loolu sëñ Tuubaa ko firndeel lu mu wax abatullaha salaasar fa xaamin qabla irxaasi aadama wa xawaa jaamu naa yàlla ñetti junni at te tëragunu ruuy bindagunu aadama daa am gu baax gu may wax ni fan seytaane jaar ba nax aadama ba mu wàcc ci nguuru yàlla gi tax ca kaw moom iblis amu fa yoon kon yàlla bari pexe waaye Cheikh Ibra Fall dafa jot ci ñu teg ko ci ëtt bi ñu xam ni du ifaal ak laa tafaal du ngir du askan du fammi koo xamante ni li seen maam donn ci ak mat ay sëtam donn nañ ko ciy mat seen seex jëm mat na sëkk lam doon li seen maam donn ci toppe doon nañ ko sëkk ci toppe ku ci am junniy at it ki fi ndekkal Sëriñ Tuubaa la moom la seen maam nangu woon ci nangu donn nañ ko cig nangu siiwal mbakki yii na hum saadaatuna abadan koo xam ne du ñoom du yow yaaram bi naan Fall léeg-léeg sax nga gis yenn vidéo Serigne Cheikh Fall borom ndigal raamal Serigne Modou Kara léeg-léeg nga gis beneen beneen beneen vidéo keneen Fall raamal keneen diw Mbàkke ma jàpp ni nag foofu la yoon wi toll mooy ñu jàngale dëgg-dëgg ak tarbiya waaye dëgg-dëgg tarbiya mun na koo waxtaane te génn maarifa te maarifatu billaahi xam-xam xam dëgg-dëgg yàlla. Cheikh Ibrahima ci soobu nee keroog bi ma ca nuuroo ba nutti bàyyiwuma fa dara. di nga dégg sax sa wolofal ba sëñ Moussa Karaan ko yaa defal lampi diine gaaye fa Touba. yaa ko wan yoon wa jëm ca dex ga mu naani. ama dawa bu zikru fa huwa akbaru min kulli ma kaana muridun yuksiru kon egg ci yàlla ndax nit ki mën na koo def te du tudd yàlla. mu mel ni ay jamono ci ginnaaw waxtaane naa ko ci benn waxtaan julli gi bu ci zikrul ilaahi génnee dootul julli ndax inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar waaye war a zikrullaahi akbar zikrullaahi akbar googu noonu nga xamante ni mooy connexion bi lay joxale sa diggante sa borom mooy defar ruugi baaxi na ci tuut rek ngir jëmmi Seex Ibra Baay Faal yi dimbali sëñ Mortala Fall nag la ñuy waxtaanal tey jii euh, sëñ Fallou jàppandal moo feggoog moom Fall yaram sang bu tedd bi dimbali nu ci zikrul ilaahi mar ak mbokki taalibe yi ndax nit ñi danoo mar nit ñi danoo yooy jaam ñi danoo lot jur gi danoo ruur ñi ci ëpp ngi bëgg a réer te jur gi war noo réer war noo ruur war noo yooy war noo lot te la dundal benn kalima la muy kalimatul xaq ni ko waxee léegi afaali salaam rasulallah ila tawaali fi yaqulullahu la ilaha illa dimbali nu ci zikrul ilahi googu genn secret rek ndax ñëpp war a yegg yàlla ji ñëpp ko war a mos loolu wér la ndax gumba naa ba gumba jeex waaye gumba ci xol mooy wax ju jeex ñi seen xol gumba yépp dañoo nàmpagul ci yàlla nàmp ci yàlla nag danga koy jëlee ci ki mat ki ko war a jëlee muy laa ilaha illallah ndax boo ko jëlee ci moom muy muy kalimatul xaq googu moom ci la lay jaarale yégal la fa sa borom marale la pay bi ndax mboolem góor yàlla boo xam ne maanaam daa war a dund yàlla war a war zikkar kalimatul laa ilaha illallah danga nga am ci woo ci kooku war a jële ci ndigal. Mhm. ci boo ko jëlee kooku ci ndigal kooku moo lay jaarale ci lymphocytes yi par benn par benn ay escalier la. Mhm. escalier la bu la ci jaaralee ba nga yegg fa nga war a yegg dootoo ci yoon bi. ndax yow la gis dina ñee waaye yow bu dee bu as góor nga da leen di ñeewantal si sa sëriñ ki nga xam ne moom moo la marale pay bi kalimatu laa ilaaha illallaah nag daa nekk yoon wi. daa nekk yoon muridullaahi nekk yoon yoon yoon boo xam ne maanaam mboolem koo xam ne daa woote woo woote woo fa la war a jaar ngir mën a yegg fa boromam dégg naa sëñ Fall wax léegi boo julli force di ko tudd boo sëlmalee da nga naan asalaamaaleykum yow yaa yow yaa nuyoo koy nuyu kon ñu góor yàlla ak Baay Faal damaa jàpp ñu war nañoo mën a gindee ko ci yoon woowu bu baax baax baax a baax ngir ñu mën a xam kan mooy suñu borom suñu borom nag dee su ko xamee ci folklore da koy xamee ci ci xamin nga dëgg-dëgg xamin nga ngir ngir mën a delluwaat sa bopp ci moom ndax ku xam sa bopp xam sa borom boo xamee sa bopp da xam sa borom lépp nag cosaan ak yow la yow toog di di di jàngal sa bopp sa moo tax dina loolu dina gën a ngir nga xam sa borom ndax Serigne Touba mboolem góor yàlla bu fi nekk di wootewoo yàlla boo làmbee seen biir ba si biir ba si biir ba si biir ñoo ngi ndax sunu bopp de ñoom dañ naan la Serigne Touba mooy Serigne diw gaa yi bëri mën naa la li ma ay tur ku ku ci yor tur bi di ko doxal bu doxal tuuti ba si kanam tuuti rek danaa la sunu sëriñ boobu sunu sëriñ boobu sëriñ tobaay sëriñam kon ñoon dina am fulla dem jëli ji ko li ma wax sànq la yor du moom moo ñuy woo jël si ko si ñun ñu ñooy dem jëli ko ci moom mhm. jëli gi ñu koy jëli ci moom nag moo tax ñuy mën a am ngërëm a yàlla si sëriñ Touba waaye waaye nag boo demee ba tudd yàlla ba nga xam ne maanaam lamit bi ko da jox xol bi xol bi bu dee ba attanu ko dafa def cër yi dem ba cër yëpp di tudd yàlla da ngay tudd yàlla booy booy booy xewlu di tudd yàlla. Hmm. booy booy dox di tudd yàlla ba nga xam ne yow da ngay def jëmmal ci àdduna da ngay dégg dégg li muy li muy sàbbalee kon kooku nag mënoo koo jaar fenn ci ci loolu laa ilaha illallah. kon dafay mel ni maanaam nit mënta am baat wi. waaw li fekk joxuñu ko. fekk joxuñu ko bu bu ko amee te joxuñu te joxuñu ko mun na cee jàll waaye pour bu dee daa am escale ci yoon bi. mën na faa jaaree yore sagar da ngay dégg ñu naan laa ilaaha illallaah day dof la waat waaye ki ki mu dof loo da koo jëlewul ci ndigal. Mhm. ndax médecin bi boo fa demee mënoo si ma si ma ne ma si ma taalagal day doxal suba ñaari paracetamol suba ak ngoon ak guddi ma ko jël par ñeent lu ma si góob naa ko gat waaye moom waxee ma ko noonu kon loolu mooy ki nga xam ne am ndigal. ci laa ilaha illallah. kon daal ndigal mooy notice bi ci biir. mooy notice bi. ordonnance bi. nga xam ne de ki nga xam ne moom moo la jox bi. Mhm. kon kooku day jàll bokk ci digg-digg góor yàlla te ba pare fa lay jaaree xam boromam ci jàngul ndax fa lay ne mu laa bi kasratir riwaaya bal am na woo loolu maa diraaya sànq maa kooku noonu bu jàllee dina la wax aaya yoo xam ne sax moom mosu koo jàng ci ci daara ji mosu koo jàng ci arab ba te di di tàllal loo xam ne mosu koo jàng fenn ci loolu laa ilaha illallah. la xamee loola. nit ki bu demee bay faatu di bu buñ ko tiimee la moo tax duñ ko wax wala sa ndey wala wala sa baay wala jàng alxuraan bi waxal laa ilaha illallah lañ koy wax boobu làmmiñ bi du ko mën a wax ndax àttanu ko ndax ba muy dund moom daa ko wax. waaye ci jamono yi muy dund nag bu dee da ko daan dundal di ko dund. kooku buy sukuraat moom ci moom ci loolu lay dund ci loolu lay dee ci loolu lay dégg waaye bu utee nag ki nga xam ne da ko da nga ko dund tuddloo ba sonn mu bay kooku day làmmiñ bi day lott ci tudd yàlla boobu ba faatu dem nii rek. ndeysaan kon am kilifaay li am solo. soo ko amee am nga solo. soo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomb ba mbax mu mel ni jamono ji dafa toll ci ñàkkum kilifa. Mm-hmm. moo waral yi xew ci mbedd mi bi ngay ñëw romb nanu tàkk-tàkk yu bëre. Mm-hmm. géero géer ñaa ngi nii daal Muhammadu Rasulullah. Abdallah baay ba Mustafa Amina yaayam. xayrul anbiyaa lu waay jàpp na be